quoi. tey moom suma suma suma suma jàmm daal laa bëgg suma jàmm laa bëgg bii lay walaay taala tey suma jàmm laa bëgg bii laay. waaw Omar tey da ngaa sànci sa ku la sànci sa caay beeg. maa tey tey ndey. waaw tey ndey. waaw sama sànci sama sànci bii. waaw kii la ko sànceel. waaw mooy Seynabou Thiam. Ah. Pape Ah. moo ma jog dàll yii. Ah. Seynabou Thian moo ma sañ. Seynabou Thian rey na la ba nga dee kay. Eh, Seynabou Thian Seynabou Thian rey na la. waaw ah, sañ sañ nga ba rafet kay. waaw moo tax ma ŋaarale. ŋaarale ubbeekul defar lu la saf tey parce que feet la ñëpp a kontaan <laughs> kon dajaleel dajaleel ñuy nuyu ñëpp ñi nga xam te nag ñu ngi seetaan Omar Rew lañ leen indilaat di nuyu nag euh, waa diaspora ndax ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi ñuy encouragé di ñu seetaan euh, bi ñëpp ko bokkoo Samba Diaw sama frère euh, de Cambérène instant bi ngi Italie ñoom Papa Faye Binta Ndiir Yadd ñoom ñëpp daal ñu ngi leen nuyu ak Papa Faye Big Shop. jaaykatu eh, Papa Faye Big Shop. moo la moo sol mayo Cambérène la am. mayo yëpp la am. kon waa léegi nuyoon. maa ngi nuyu Big Shop. waaw Big Sox Cambérène <laughs> Cambérène Cambérène waa Cambérène waaw ñooñu indi Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye dëgg la kon kay kay léegi da ngay dem nga ziyaar waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam <laughs> sallallahu alayhi wa sallam wallaay juumoo wallaay juumoo ngay réew yëpp juumoo wallaay juumoo waaw loolu moom dëgg la sa réewande moom kamb ak kilifa diine yëpp bokk ci moom doful doful doful de réewande gi dafa am fu mu yem waaw wokkatu bi nag dama ngas jaara ma ci wax <laughs> yaaye jaara nuyoon jaar nuyool jaara. ndey jaar ndey dof fi nga invité sa plateau bi doo ko bàyyi ngir yàlla ndey. Mm. man xaw ma lan laa nuyoo ndax lii kii bi ni ko ràmm nii ay lii mbaa jàmm la. nee dafa ŋas. ndey maa ngi lay nuyu. di rafetlu invitation bi maa ngi lay nuyu ndey di rafetlu invitation bi di la wax ne sa orange baax na. gis naa di nuyu waa Kahone yëpp di nuyu. ala alaaji Malick di nuyu Aji Mansour di nuyu Youssou le grand monteur di nuyu ñëpp nag di nuyu waa kër Romain yi ñoom Bamba ñoom Isaac ak ñoom Toos ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu nag waa Kawoon di nuyu maire euh, Ngenaat Diagne yàkkat yaa nekk fee depuis Mbirkilaan moom mooy refans club Omar Rew bi nekk fee nag diwaanu Mbirkilaan ñu baax baax a baax nday doxalal muy wokkatu ni mel ni ku ŋas man damaa jomme de man kii jikkoom neex waaw Omar Omar dafa mën a wokkatu sax gis nga tere ma lay wokkatu bi madame Ndiaye. tuddee nga ko lu bon madame Ndiaye. madame Ba. madame Ba Oumou Ndiaye. tuddee nga ko lu bon moom laa ko tuddee. moom ngay tuwaat moom laa tuddee ak kottu bii. Ah. kii de comme kuram. waaw kay ñu ngi koy nuyu bu baax. aywa ay sata. day tooñ nga ma nag. ah man kay damaa jox nga may boole plateau Ouzin Keita laa doon invité sax ak Pawlish ah, léegi question bi ma lay njëkk laaj ci Omar démb gis na ñëpp bég euh, bégte bi nekk lu rëy ñëpp nag booloo daal di dem ca palais euh, lu waral loolu lan moo tax ñëpp. parce que président moo ñu jig Macky Sall moo ñu jig keneen Macky Sall moo ñu jig Coupe d'Afrique qualification keneen moo ko fi indi ku dul Macky Sall Macky moo ñu jig nañ waxante dëgg ku ne nen ne nen ngi ni c'est ça la réalité loolu moo am ku ko weddi nga nga nga nga nga weddi loo xam ne yalla moo ko dagal yàlla moo ko dagal léegi yàlla moo ko dagal yàlla moo dagal Macky Sall moo moo indi Coupe d'Afrique Macky Sall mooy indi qualification coupe du monde bi lépp Macky Sall la ginnaaw yàlla yërëmte bi nag nit bu la jégee bu la jégaatee da nga koy bàyyi mu def li mu li mu bëgg li mu bëgg nag ñun kam nañ ko ñun kam nañ ko mooy danañ ko jàppale. ok waaye troisième bu bu bu mu bu mu jóg ca kaw rek. Euh, jaara euh, euh, ban xalaat nga ci am ñëpp dajaloo démb rek dem ci buntu pale ba. day fay fête victoire bi. Ablaye Wade moo njëkk a jubilé. ne 2-0. Ablaye Wade moo njëkk a kon tey jii bu ñu demee keroog amul sax loolu nga ne loolu loo signe bu baax la fara Wade Ndiaye daara Wade Ndiaye yuquma ci sombu xeej Faris bu mag bi kenn day moom bu nga nit ñi xool loolu xam nga lu waral loolu ak lu ko andi mm. waxu troisième mandat waaye na xoolal nañu ah, dimbale du suñu porte bonheur suñu porte malheur la na dimbale nit ñi ñun soxlawuñ ko baax na man dootuma ñëw si ah, émission yow kenn soxla wala plateau man bul def loolu déedéet man bul def loolu ndax sa xalaat dañ ko soxla waa lu tax parce que ndey sa émission bi sa émission bi ndey waaw xam nga lu tax du ma fi ñëw waa lu tax affaire politique war ñu ko foon tudd yaa ko njëkkee yow dama la yow kamal yaa ko njëkkee defal nank Macky Sall yàlla moo ko dimbali lii njëglaay la njëglaay nañ ko ka nangul nañ ko ka nangul ah ña nga nañ ko ka nangul kay yàlla jaagoon na nii nañ ko ka nangul. kara sa président nañ ko nangul. sa président xam lan la président bu nekkee njiit ñu gañe bu ñu jëmul foofu fooy ja. sa sal Macky Sall billaay wallaay taalaay man demale wax musu ndey. Mhm. musuma lekk dërëmam. yow dimbale ñu. ndey demale wax rek kii corrompu bu la. xalal kii corrompu ñu koy bokkat suuf ko coppal loo tax mu wax leen caayam ju forox ji mu wokkatu nii bay mel ni muus mu caayam ju forox maa ko wax léegi. lii dagg sa xol laa lay defal. mooy lan ndey. tey damay taasul Macky. taasul ba mu neex. ma ne doo ko xalamal wala nga gitaar wala nga. tey damay acca taasul yow da ñuy déglu. xam nee ma gin ñay. gin ñay nee lu ma wax rek nekki nee ma gin ñay. Macky mooma. gin ñay sànni ñaari. yaa gayal. gin ñay. yee yow jaral. gin ñay. Macky ko jaral. gin ñay. Macky ma ko jaral. moo ko jar. gin ñay. yaa ñu gin ñay. yaa ñu moom. gin ñay. loo bëgg. gin ñay. Macky Sall. yaa ñu moom. gin ñay. yaa ñu jig. gin ñay. yaa ñu moom. gin ñay. te nee na comme que Karim day ñëw nijaayu Karim ak tata Viviane Wade ànd na ñëw Sénégal pour joxe benn message message bi lan la. ñu dem seeti kar euh, tata Viviane nga xam ne gën nañ ko gis nee na daal ñëw na toog te dootul delluti seen kër ga amoon France jaay nañ ko toog Sénégal ndax seen doom la ñuy ñëw teeru seen doom la ñuy teral xam naa ne daal li gën a gàtt daal mooy Karim Wade daal xam naa ne 31 décembre gën ngaa yéex le 1er janvier dina ñëw Sénégal ñu seeti tata Viviane Wade ak ki nga xam ne moom mooy euh, euh, André Dem Dikk André Baye Vier <laughs>